Assalamualaikum warahmatullah. Ojo binak bi nag mu ngi jëm ci nga xam dañ may laaj njariñal jaaro bi mooy ñi nga xam ne dañoo bëgg jaaro bi tey laaj njariñal jaaro bi jaaro bi ay njariñam bari na bari waay goo xam ne su ma ko bëggoon a lim dinaa fi yàgg waaye dinaa fi cité yenn rek jaaro bi képp ko takk lii ñuy wax liggéey kenn du la ko mën def ba la mu ngi sa loxo kenn du la liggéey la itam wax du nga sonal ñaareel ba mooy képp koo xam ne am nga jaaro bi li ñuy wax ubbeeku da nga koy def ubbeeku nag mooy koo xam ne daa tëju ay mbiram dëgër munul am dara boo takkee jaaro bi loolee dina dañ ba set wecc képp koo xam ne takk nga jaaro bi itam li ñuy wax bayre da nga ko am di nga yëg ni am nga bayre nit ñi dana la gën a sopp te dana la gën a jox bopp kon jaaro bi képp ko takk ci tënk di nga am kaaraange di nga am ubbeeku te di nga am bayre ñett yi nag képp ko am musuma loo ñàkkati alhamdulillahi wa salla abada asalaamaaleykum wa rahmatullah wa barakatuhu mbokk yi ñuy seetaan ñu ngi leen di nuyu di leen siara, di leen dalal seen chaîne youtube di leen ñaan nag ngeen abonné ci chaîne bi ndax ngeen di mënti jot vidéo yi ñuy dugal saa ne di leen ñaan tamit ngeen koy partagé whatsapp facebook réseaux sociaux yi ngeen ko mën a partagé rek partagé leen ko mu gën a yaatu ngir mën di mën di dimbale ay jullit yu bare bare bare incha allahu taala tey nag leen di indil benn secret Umu Musa boo xam ne sax ñu bari xam nañ ko tënku ci allahu safdaanun 1135 rawxaya eelu 100 fois barxiyun 100 fois ak ñaari ay alquran yi wa yansuraka allahu nasran azizan 7 fois nasrun min allah wa fathu kharibun 7 fois secret umu musa bi nak mom indi alal moko taxajuk tax ubbi ay wërsëg ak indi tawfiq ak taysir incha allahu taala wirdu bi nak dang ci sax tak rek bés bu nekk nga koy def suba gi rek doy na wala ngoon gi rek doy na wala heure boo ko mënti def ci journée bi baax na boo ci saxee incha allah ba gént gis yonent bi sallallahu xamal ne am nga ijaaba ci bi lépp loo si ñaanate incha allah yàlla mën na ko nangu ñu njàngale mi li nga war a wax mooy allahu saf daanun wérda boo war def junne ak téeméer ak fanweer ak juróom comme saa su nekk rek dangay ngay njëkkee juróomi teg ci fanweer yi teg ci téeméeri yi teg ci junne yi soo paree nga wér raw iilu téeméer yoon soo paree nga teg ci barxiyun téeméer yoon soo paree nga wér wa yansurkallaahu nasran azizan juróom-ñaari yoon soo paree nga teg ci nasrun minallaahi wa fathu xaribun juróom-ñaari yoon incha allahu taala soo ci saxee yàlla dana defal tawfiq ngam nga am taysir di nga gis ay futuhaat ak ay ubbeeku incha allah kon nag mbokk yi xam naa fii la ñuy yem ak jox dig daje benen yoon ci yeneen vidéo ñu ngi tup vidéo yi nga xam ne ñu ngi koy def ci kàllaamay nasaraan dafa fekk ne rek ñi ëpp ci ñuy seetaan dëkkuñu Sénégal te yàlla def na dégguñu wolof asalaamaaleykum wa rahmatullah asalaamaaleykum wa rahmatullah ojo bi nag mu ngi jëm ci ñi nga xam ne dañ may laaj njariñal jaaro bi mooy ñi nga xam ne dañoo bëgg jaaro bi tey laaj njariñal jaaro bi jaaro bi ay njariñam bari na bari waay goo xam ne su ma ko bëggoon a lim dinaa fi yàgg waaye dinaa fi cité yenn rek jaaro bi képp ko takk lii ñuy wax liggéey kenn du la ko mën def ba mu la mu ngi sa loxo kenn du la liggéey ba mu la te itam lii ñuy wax cat du la jàpp nga xam ne moo sonal ñëpp ba mooy képp koo xam am nga jaaro bi li wax ubbeeku koy def ubbeeku nag mooy koo xam daa tëju ay mbiram dëgër munul am dara boo takkee jaaro bi loolee dina dañ ba set wecc képp koo xam ne takk nga jaaro bi itam li ñuy wax bayre ko am di nga yëg ni am nga bayre nit ñi dana la gën a sopp te dana la gën a jox bopp kon jaaro bi képp ko takk ci tënk di nga am kaaraange di nga am ubbeeku te di nga am bayre ñett yi nag képp ko am su ma loo jàppati الحمد لله وصلى أبدا, أبدا